di leen jàppal a la nekkin wi te bu yàddee ñu joxe alal ngir loo xam ne lan lañ bëgg ci yéen mooy diine ñor leen alquran nekk seeni i ngeen am yar ak teg yoo xam ne bés bu ngeen bàyyi ko ci daara ji bu ngeen dellu seen i ku leen natt ci yar fekk ko fa ku leen natt ci xam-xam fekk ko fa loolu nag su boobaa. ñun li ñuy jéem suñ kenn kàttan mooy fexe ba alquran ngeen nekk ci ay jàmbaar wëlbatiku hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen xam ci lu bari ba bu ngeen delloo seen i kër bu ëllëgee ngeen war a liggéey war a liggéeyloo ay nit sax wala ngeen war a nekk ci mbedd mi di dawal seen oto wala di doxantu wala moo xam da lu ngeen mën def ci société bi da ngeen di amal njariñ société bi waaye nag bu ngeen nekk ñoo xam dañuy lor waa société bi mu yàq sa àddina yàq sa alaxira waaye diine bu nekkee ci yow nga di ko dund alxuraan nekk ci yow nga jàng ko xam ko wër ko war koo jëfee loolu nag dana aajo nga am noonu su ko defee nag ci daara ji ngeen koy ko saxal déggee ci liñ bu ñu nee dafa war a am yar ba noppi ndax xam-xam yar a koy gunge mu jur njariñ xam-xam bu ko yar gungewul lor lay jur fa kasatul ilmi bi xeyri adabi jaalibatu ila al ada wa taabi sëñ Tuubaa wax ci tësul di saxaar nee na sa xam-xam lu mu bari bari bari te àndul ak teggin daf lay yóbbu ci coono kese ak i lor moo tax ñu ne di nga gis nit ñu boole koo xam-xamam toroxal waaye doo gis mukk nit ñu boole koo yaram ak i tegginam toroxal ko kon yéen a ngi jàng naam ndax programme bi ni mu demee ci daara bi jàng ta ñàkk am waaye nag yar ngeen teggil gi itam faaw nañ ko ci njàmbaas moo tax oustaz di yar sëñ Mansour di yar ñun ñi itam waxtaan bi lépp li ko tax a jóg mooy yar rek ku ci def lu def bi kenn laa xam ne lii kat du loo xam ne ci lu ndongo daara te baaxoo naa leen wax saa su nekk ne leen bàyyi leen xel ne daara ji dafa am diir bu ngeen fiy def diir boobu bu weesoo ku wattu daanaka di nga bégloo daara ji bégloo seen wéju waaye wattu alxuraan dafa am ñu ko suñu borom cëralee am na ñoo xam ne bu ñu defoon daara ñaar fukki at taxul ñu wattu xëy na ca xel nag ku am pas-pas am yitte yàlla mën na laa dimbali ci diir bu gaaw mën ngaa wattu alxuraan te daara ji ni mu fas yéene doxee mooy loo wattu wattu doo ca yem waaye xamaale nag li suñu borom wax ci téere bi lan la. lu am solo la te wax dëgg yàlla borom xam-xam yi nekk ci daara ji yàlla jekkuloo na leen alquran ba bu ngeen jekkoo alquran ci wattu ko mën nañ leen a dimbali ci ngeen xam lan la yàlla wax ci biir. bëri na koo xam ne mën naa jëlee alquran baqara ba naas waaye boo ko defloo iftaax moo xam ci mawdu am fiq la wala laaj ko ci alquran ci aay yi ci yàlla wax mën na cee bañ a xam dara dara la ko def mooy fi ñëw ak alquran mooy wattu ko rek baax na nag waaye mën naa gën baax ci boo wëlbati ko xam dal la ci borom jàkka te loolu mën naa nekk ci daara ji bu weesoo loolu it mën ngaa dem ba téere fiqi yi xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa mbiru diine la ko dalee ci bi ngay gën a jamono ba biñ lay waajal ba denc ci bàmmeel yi mën nga cee xam lu bare bare bare kon na ngeen waajal seen bopp ci xam-xam na ngeen waajal seen bopp nag rawati na ci li nga xam ne moom laa ne bu gungewul xam-xam daanaka xam-xam amul njariñ mooy yar ak i dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo jàngee suuratul qalam wa innaka la ala xuluqin azim xam nga la mooy wa innaka la ala xuluqin azim mooy say jikko dañoo màgg loolu kan moo ko seedal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boromam yàlla moo ne yonent bi say jikko dañoo màgg moo tax tagg gi gën a rëy bu yàlla suñu borom bi sallallahu wa sallam ci mooy aaya boobu leen wa innaka la ala xuluqin azim yàlla dafa xam biir حبك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا سن بروم سو دارا أمبوكو دا فا خم سن بير خم سن بيتي كي خم سن بير خم سن بيتي نا بو نيلا سي جيكو ماغنا آه كون كوكو فوكو نات تي باخ فوكو نات تي ديفارو ويسو تا نا تي لم جوغي وون ba mel noonu leen ba yàlla suñu borom seegal ko jikko yu màgg القران kese la يا عائشه biñ koy laaj ci jikko yonent bi sallallahu alayhi dana jikkoom mooy alxuraan kese li alxuraan santaane loolu la jëfee li alxuraan tere loolu la bàyyi la desaat ci alxuraan mooy ay taarix yuñ lay nettali tey bu nee na fii ak fii la jaar yonent yàlla Muusa fii ak fii la jaar fan lañ mujjee Firawna moo lab yonent yàlla Muusa moo texe su boobaa nag boo bëggee lap ni Firawna da ngay xool fa Firawna jaar fa rek fa mu mujjoon ngeen mujjul yoon boo fa jaaree tey noo ngay rawee tax noo ngay jàngee su ko defee da mën cee jàngee itam xam ne kuy tooñ du mucc yàgg ñuy seetaan sax donte tubaab yu ni ay yéeféer ñoo bind xalaat ko saa su nekk kii yàgg-yàgg du am ndam kañ ne mooy acteur wala ñu naan mooy jeune bi yàgg-yàgg mooy daal ak lum tërëf tërëf tërëf tarxis tarxis tarxis bañ bëgg koo jekku danañ ko aar aar ko ba mujj ga mooy am ndam loolu nag nuru na xalaatu doomu aadama waaye suñu borom nii la baaxoo defee yontu bi ku jàng xam di gis xeeti jafe-jafe yu nekk jaar ci waaye fañ na mujj am ndam la aghlibanna ana wa rusuliya jaan ngeen yàlla su borom wax ni yag yag man may noot ak sama yonent kon nak ku bëgg am jamm aduna ak àllaaxira da ngay fexé fi ni ali bi alayhi wasallam wasalaam jëmbatoon dundam nga gëssu ko gannaaw boko gëssu nga teg ci sa tànk te dara jiituwu ci jamm am am am baat bi njëkk a ci alquran karim ban baat la yaqra yaqra moy lan jangal xamal wutal xam-xam yonent bi dem na ba ne rabbi zidna ilma ak xoolal ñun bari xam-xam mu ne yalla suñu borom di ma xam-xam nga xam ne da ngay dem ba japp ne bis bo boo dooleekuwul xam-xam rek bis bo boo dooleekuwul dars bis bo boo dooleekuwul ay yo wat su bo wadé mel ni bis bob mom médd na bu nekkon ci kaw suuf di dox ndax wo ko wo xam-xam bàyyi leen xel loolu su ko defé nak ci teggil yi nga xam ne képp ku nekk ci daara war na ko bàyyi xel mooy war maal alquranul kay téere yi ngeen yor di ci jàng xam leen ne mooy téere bi gën a tedd ci kaw suuf ngeen war maal téere bi ba nga xam ne ku leen bettoon sess leen ci daara ji sax dina gis ne yow téere bii nga yor di ko jàngee jox nga ko war ma joo xam ne war ma ju yéeme yéeme ci ni nga koy yi ni nga koy fonkee ndax kàddu suñu borom lañ ci dajale tey su ma jëloon kalpe def ci ay huit mille dix mille yu bare bare bare bare bare jox la ko kalpe boobu di ko fonk di ko jox cër di nga bañ kenn yàq ko wala sàcc te xaalis kese la àdduna ko taxul kon nag téere suñu borom bi nga xam ne defar àddina defar àllaaxira sëñ Tuubaa da daan toog ci kaw ci suuf ci suuf la daan toog jël téere bu tedd boobu teg ko ci kaw la kon téere boobu am solo téere boobu mat naa war naa te loolu dafay firndeel na yow lii ngay jàng ñor na la moo tax na ngeen war maa seeni téere waaye téere boo xam ne boo ko yoree ñaari fan ñetti fan ku ñëw fekk mu xotteeku yàqu ba ñu wut kol naan dañuy kole koy teel a moytu ndax alxuraan kenn du ko weefal musxaf bi kenn du ko weefal yàlla suñu borom bañ ne ba ne laa yamassuhu illal mutahharuun deesu ko laal lu ne da jàpp waaye nag nga xam ne dañ nekk ci daara di jàng alxuraan ñooñu woyofal nañ leen ba yow mën ngaa laa téere bi taxee na sax mu jàpp ndax ni nga baaxoo jàng alxuraan miin ko ca lañ la woyofalee loolu kon nag buñ la woyofalee da nga xam ne laa woyofal rek waaye du tee nag nga wormaal téere bi ba boo mun jàpp sax soo nga def ko boo ko mënul nga téye ko wormaal ko te yàlla rek tax ndax ñu ci bëree bëri ay jus a wax da nga yor am na boo ko jeexalee dem xar sami am boo nar du yor yaasin ginnaaw ga nag ci lañ lay soog a jox téere fekk nag dañ ne commencé warmaal téere bi te yàlla rek tax warmaal laa ne ki lay jàngal ndax boo nee fonk nga téere bi di ko warmaal di ko jox cër di ko sàmm bañ koo yàq su boobaa ki nga xam ne moo leen sàmm ay muy sa oustaz nooy def moom dégg ni ñu ko waxee ci way bi fonk oustazam bañ koo lakkal lu mu wax mu ni waaw ngir xam-xam sa oustaz danga koy fonk sa oustaz danga koy jox cër te cër bi ñu koy jox li ko ci gën a neex mooy am yar teggin sa diggante ak moom waaye nag dars yi mu lay jox nga fexe ba di ko wattu di ko wattu ku ne xam ne ne sa dafa metti sa mooy nga ñëw ma jàngal la ay benn ginnaaw benn boo jaxasee ma jubbanti la jaxasee ma jubbanti la ñu ci dem di ci dem ba li ma la war a sa ma sa la ko moo xam euh, juróomi aaya wala moo xam page la wala genn wàllu lu mu ci mën di doon bu la ko oustaz joxe ba noppi li koy dimbalee ci war ma boo ko war mooy nga fexe ba bu la mayee diir bi nga war a toog jàng ko wattu ko moo xam da ko koo jël ci suba bi war koo tari ci ngoon bi wala lii jël page ak genn wàll nga war koo tari ci ëllëg sa nga fexe ba bu la ko laajaatee ni mu la ko joxee woon nga taree ko noonu jamono bi ñuy jàng ñun suñ benn jàngalekat dañ daan wax ne. li ma leen wax na ngeen ma ko delloo maanaam bu ñu daan examen danaa li ma leen wax delloo leen ma ko ni ma leen ko waxee woon doo ci yokk doo ci wàññi doo ci yàq dara ndax alquran yi kenn du ko yàq boo ko yàqee rek daanaka dugg ci loo sa loo xam ne safaan lay doon ci yow yàlla suñu borom kilifa la kenn kon war maa leen téere bi waaye ustaas bi nga xam ne moo lay jàngal. di dimbali ngir nga jëpp téré bi wattu ko fexé ba nang ko jox warma te warma gi bokku na ci li gëna neex moy lepp la jàngal na nga fexé ba wattu ko lu am solo ndax suñ taw wax na né sa hadith yonte bi sallallahu alayhi wa néna jang li nga xamné moy ay gàkk-gàkkam moy faté faté li gëna bon ci jang moy faté ndax boy jang ngir faté kon ngay jotoon jàng c'est ça bo ñëwé jàng jus am ñu ne moko wax nga ne waaw te fuñ la bekk ci ay yi nga xam ci biir jus amal nek amul lenn loo ci doon bu ñu la nangam nga cat ñu ci tuwaat feneen nangam nga cat kon yow la nga jàngoon moom ngir fàtte jotoon jàng yaa ñu jàng yéene moo tax wattu bi lu am solo la kon dimbali leen oustaz yi ci lan mooy saa buñ leen saaye bàyyi leen ab diir ngeen toog ngir wattu ko fer ngeen ijji ba sa ijji bël kon bu ñu xasee ba sa war ngeen mën a toog boo gañee sax gàgganti sa bopp ndax boo xoolee téere bi foo gàgg mën ngaa gàgganti sa bopp gannaaw boo gàggantee sa bopp nag la ca war a tege mooy nga wattu ko kon teggin yooyu mat naa bàyyi xel sa digganteeg téere bi wëlbatiku làmboo teggin sa digganteeg oustaz ak teggin seen diggante di fi mu ne kenn ku nekk dangaa bàyyi ko ñëw ngeen daje ci daara ji dajé bi ngeen dajé ci daara ji da leen a war a melal ñoo xam dañoo bokk benn nday bokk benn bay yéen bokk alxuraan ji ngeen jàng yéen bokk benn yonent bi nga xamné moy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné ne moom la yàlla yónni ci mu jot ni ñu kon loolu moñu moñu dajé té loolu moy gën ci dajé gën ci dajé moy ñi nga xamné dañoo dajé ngir yalla ak yonentam te moo ñu dajale ci barab bi kon dañoo war a warmaalante dañoo war a bëggante dañoo war a dimbalante loolu na ngeen ko bàyyi xel ku ci yor loo xam ne sa morom soxla na ko ko nga bàyyee ko ko te yàlla rek tax bañ di doon tel place la bu ñuy taxaw sax ngir julli moom mu ne moo bëgg a jiite nga bàyyi ko mu jiite loolu di ko dimbali sax parce que bu dee ko bëgg a jiite mu bëgg mu bëgg ñëw ne mooy jiite tey bàyyi ko mu jiite boo ko bàyyi mu jiite boo lëgee yow dina ne la dama jiite sax xëccoo baaxul nit lu muy xëccoo rek moom ko ku la gën a dara bàyyi ko boo ko bàyyee bu yàggee dana xam ne yàqu dàq fi yàqu moom sa cër la loolu lu am solo la yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi moo tax gis ngeen saa bu fi ku bees ñëwee dugg ci daara bi charte bi ñu leen njëkk a wax mooy fii amul xeex boo gisee lu la naqari demal wax ko oustaz wala nga wax ko sëñ Mansour Mansour liñ fi nekkee weesuwul di leen xool bu ngeen jàng ndax daara jamono bi ngeen di jàng benn jafe-jafe mën naa bañ a ndax yéen ngi toog ku nekk yor daa sax yor téere di jàng oustaz toog seen kanam di leen xool kon foofu gaañante mën naa bañ xeex mën naa bañ a am mën naa bañ am waaye jamono bi ngeen génnee nag nga xam ne wàcc leen nekk ca néeg ba di seetaan télé wala nekk ca saal ba wala nekk fu mu mën a doon foofu la jafe-jafe mën ku ci sa morom def lo neexul wala mu togn la bul fajal sa bop xale du fajal boppam xale dafay dem ci mak mu fajal ko ndax xale mën na fajal bopam gaañ morom xam nga lool xale mën na la wax lu la wax wax wala mu def la lu la wax def nga jéem fajal sa bop gaañ ko boko ko la indi di jafé jafe do ko faj amo lo ko faj te juro suba wa boobaa daal di te waajur bu ñewé ne gis doomam am gañu gañu wala mu am foo xam ne damm na wala nangam ndax dana ko neex ana kan jigéen moo bëgg nekk ci daara ji fii am ku la dóor ba sa loxo damm wala góob génn wala dara ku ko fi bëgg kenn bëgg ko léegi boo ko tegee kenn nag waa juróom ñëw fi gis loolu su boobaa di nga teg sa bopp gàcce waaye nag di nga teg sa bopp gàcce naan waaye di nga tegaat waa daara ji yëpp gàcce waajur yi bëgg nañ ngeen jàng bëgg nañ ngeen am xam-xam waye ku fi sa waajur ñew day bàyyi xel xool toppatoo bi nan ngeen mel ba xam ñu leen di toppatoo ba xam yeen di nek ba suuf yeen ngi naan du man te loolu dañ koy bàyyi xel bu baaxa a baax a na ci seen xel dal bu soobee yàlla dinañ fexé ba insha allah di ngeen lek ba suuf nan ba man di tëdd fu noy man da nga faral di ni daara ñàkk gis sa day ñàkk gis sa bàyyi doy na surtout mu kesse ci daara loolu rek doy na waaye am na daal yoo xam yàlla nattoon na leen xëy na dëgg-dëgg amuñu ko ba xëy na xale yaa fa ñuy jàngee mën naa bañ a nooy fa ñuy tëdd mën naa bañ waaye yooyu yëpp ay coono la yoo xam ne bu nga liggéey xale bi sax gis nga loolu dootu ci am benn jafe-jafe yàgg na wax ne ba muy jàngi am na ci ñoo xam ne saako bi ñuy toog ñoo ko bi ngay toog booy jàng ñu la jox dars wala ñu la jox ay aaya di ko mokkal wala saari alxuraan yow yaay indi saako toog te yàlla dimbal leen ci loolu te ngeen di toog fu nooy bu ngeen génnee pour seen saala gi na leen yor seen i télé di seetaan macha allah léegi nag effort yooyu yëpp bu ko nit ñi def di am ñoo xam ne ñu ngi ci suuf li leen tax a jóg mooy toggal leen saa bu nit ki jotee xam ngeen fi mburu mi jóge fi beurre bi jóge fi chocolat bi jóge li ngeen di def ci biir thon beeg mayonnaise beeg nangam nangam xamoo leen ko da ngeen di ñëw rek wàcc ñu jox leen bu añ jotee. xalaatoo leen bañaan añ baa ngi leen di xaar bu reer jotee reer baa ngi leen di xaar loolu nag gis ngeen loolu am na seen kër añ am na fa reer am na fa ndékki am na fa kon bu doon añ ak reer ak ndékki kase seen kër ngeen di toog daara ji nag li muy jéem mooy añ yeeg reer yeeg ndékki yi ngeen di am fii day tax du ngeen nam seen añ yaag reer yaag ndékki ya ngeen doon am seen kër kon na xaw a méngoo waaye li fi indi dëgg-dëgg mooy fexe am xam-xam am yar am teggin delluwaat seen i kër seen i waajur sant ñun waa daara ñu sant oustaz yi sant ñëpp sant waaye bu loolu amul kenn ku nekk da am lu la neexul rawatina waajur bi nga xam ne yaakaar moo taxoon mu di leen fi bàyyi xel loolu bàyyi xel loolu li jibi mu ndaw doon wax naan nañ fexe ba buñ yàq deewu daara ji wax na ko ba tey nee yàq deewu daara ji mooy ñëw ci daara ji ba dellu seen kër waajur gisul yar gu dooleeku gisul teggin gu dooleeku yóbbaale woo xam-xam da nga yàq doom daal lekk nga fi ba suur naan ba maa ngi tëdd fi nooy ñu bëggoon nga yóbbaale xam-xam yóbbaale yar ak teggin yóbbaale woo daal kon kay yow ba ñoo la ñëw nga bu fekkee daa am koo xam ne ñëwul ci daal ji ba nga ci kër ga toog di jàng leneen wala di doxee lu ko neex taxawaal yow nga ñëw ci daara ji ba dellu ca kër ga kooku yéen a bokk dox yi wala mu gën laa yow yow ça kon kay say waajur bu jógoon bàyyi la ci kër gi rek nga mel ni ko li am solo mooy buñ leen fi indee dafa am luñ bëgg ngeen jëlee ko fi ñun tam ñun luñ mu am luñ bëgg ngeen jëlee ko fi ba delluwaat seen kër ci jàmm bàyyi leen xel loolu su ko defee nag balaa ngeen di dellu fii la ñuy tàmbali di leen yar yar boo xam ne bu ngeen delloo rek day daal di yomb kenn ku ci nekk del ranger sa bataan del ranger say yëre say kawas ngay denc boko sumé nga am foko ko denc soo ko soxlaa fekkaat ko boo duggee ci classe bi làmboo yar ak teggin lijjanti woo lu dul sa téré bi ngay jang jussu ku lay wax ko kowas bëgg a kafa yow nga xam ko fi du barab bu ñuy kafe ka ree fi jang su ko defee oustaz dim la jangal bu la ko laajaatee nga bëgg ko jox bo moko lé sax bu la nexé fen ngeen ijji ay ñu wara jangal ñu tam ngeen tàmbali koo jàng oustaz bu ma kon lu tax ngeen moko na da ngay tambulé ko di fo di déranger kenn ki nga xam ne ko da nga ko war a dimbali bàyyi ko rek mu mokkal moom ni yow yow mokkal nga leer na leen lii la ko sa djula ta xam nga ko bul foog bul xam fi du mara bu ci xam xolal ay yi nga xam ne ñoo topp ci sa darsu bi nga mokkal nga jëm koo xam tuuti su ko defé buñ la ko say bo ñëw toga diir bu gatt mokkal ko ku fer ci ji sa jang na war a way wala ko lay mo moo tax boo non ni jang na ci daara ci sa su ne oustaz bo ñëwé bes du gawa dem ak yow ci da fay fexé sa fer ci gëna a mokk gëna a ba ya ku la sawul sax yi mën nga sax sa bopp te do dundu jàngal leen wax fi yeeg ilmu taj bi nag fi ne sha allah yalla defal nañ ci tawfiq kon kay bala ñu la sax di la jàngal yi nga mokkalagul yow mën nga ko tambale sa bopp sax yow bu moko def sa vers bàyyi leen xel loolu moo war ma di war seen diggante ak alquran war seen diggante ak da fay feeñaat ba ni ngeen di toogee ci bir classe waru gis lepp lo yor sa loxo di ko wala mokkal di déranger keneen ki ci des muytu leen lool bu loolu wesso nak moy dima ko waxee nek bi ci biir keur gi mag ni yeeram ndaw ni ndaw ni respecté mag ni ay faral di wax xalé da fay fexé téla jombalé bopam yu bari wolof dane buñ nee toog leen ñu taxaw a tax buñ nee toog leen ñu taxaw tax xam nga ki toog ba nak do ko a togal ndax toog na ba noppi dégg loolu li ñu ciy jàngee mooy buñ nee jubbanti jubale na ku jubadiwu tooñoo defoon ngel loo xam ne dañ la koy yeddee dinañ la def metti dinañ la dóor buñ la joxee sa dara si nga mokkal boo toogee ci saal ba wala nga toog ci classe bi foo mën di nekk yaa ngi làmboo yar làmboo teggin bëriwul defoo lu deful kooku danañ ko def loolu lenn loo xam ne métti la nañ ko dóor déedéet